am lu mu ca def nit ñi nag ñoo am altine ak talaata ak àllarba waaye yàlla lu muy def ci talaata na ko def ci àllarba dana ko def ci altine dana ko def ci beneen bés tey nag ci bés yi nga xam ne dafa bégloo kër gi ci la bokk te journaliste yi xam nañ ko ndax su fekkee ne képp ku oote yàlla moo la ooteloo danga koo yëgul wala ràññiwoo ko waaye noo koy xamee bu nuy ji bu nuy ji bu ku ne mën ngaa woote waaye bu nu ñi wuy du yow yàlla mais am na ñoo xam ne pare nañoo jël essence sotti ko seen bopp taal ko pour ñu ni diw sàngam hmm. te ñetti nit rek sax duñ ko yëg waaye nag bu dee yàlla moo ne uy ji leen diw nga xam ne kooka bu doon jamono yonent yi yàlla dina ko yónni ci nit ñi hmm. bu dul jamono yonent yàlla suñu boroom def ko ba sëqatee sax nit ñi ni eskay lu jafe la waaye bu ko yàlla defee lay yomb jamono yu ñu nekk indifférence moo gën a bari tey nag bàyyi sa ngi ni ñoom ñaar ñoo maase am nañ fi ay mag yu góor yu jigéen ndax man tey maa ngi sama quinze ans kon ki nga xam ne yàlla mu ko def ci 46 ans kooku doom rek la mën a nekk ci kër waxtaan nañu itam ci biir ndax doo am gan mu ñëw nga ñëw wax jaaxal ko walla mu wax jaaxal la man muy yàgg di liggéey ak chef d'État yi chef d'État yi yi bu ñu def sommet bu ñu nee déwén la yore sommet bi conclusion yi moom dañuy njëkk bind tey li ñuy war a wax fekk ba ci arab ba ci virgule duñ ko di chef yi ñuy corriger lii na dañ lii na dugg parce que mbetteel baaxu tey buñ toogoon rek ne la mbooloo mi ci biti yëpp Sonko moo la set ah amoon ni loo ko jox amoon ndox mu sedd amoo dara da ngay jaaxle waaye bu ñu leen bu suwaa mu ñëw ah boo amul café ak meew it am café mbaa nga am meew donc premier point boo xam ne moom dana ko confirmer mooy danañu oo ndaje pour samp li nga xam ne mooy idéologie di patriotisme nu n'avons que le Sénégal où, qui est notre berceau et qui un jour sera notre tombeau. Nous ne pouvons pas cultiver ailleurs. Nous ne, pouvons, pas nous épanouir ailleurs. Donc tout ce qui est bon pour la patrie est bon pour les patriotes. Nous ne serons jamais communistes. en tout cas dans no comportements, nous ne serons jamais, serons jamais libéraux dans nos comportements. Parce que le libéral, le libéral se sent le frère du libéral là où il est. Nous ne serons jamais socialistes. C'est l'un des leurs qu'on nous a posé ici. Nous avons dit que nous sommes Mais nous ne sama yaay nit ku weex la shérif la surtout yonent bi waaye daf ma ne ñuul amul weex amul mun ko ah ñaa ngi nii ñuul weex mu ne ma kuy nelaw bay gént ni dangaa weex dangaa ñuul mais loo xam ne boo nelawee fàtte ko rek bokkul ci yow mu ne waaye loo nelaw nelaw bu seddee yaa ngi xëcc kii bi parce que yëng ne sedd na da nga yëng ni tàng na waaye doo yëg ne weex nga doo yëg ne ñuul nga loolu amul yëg-yëg moo am réew mi li ñu yëg bu tawee danañ ko yëg bu maralee danañ ko yëg te loolu fii rek lañ ko yëgee fii rek mooy maral ñu xiif taw taw bu bëri ñu suur kon loolu jarta xeeb baat boobu patriotisme boobu dama cee xalaat ay at maa ngi ni toog ak yéen Ablaye Wade toog na fii seede lii ma wax yépp man maa ko jox xalaatu na créer parti boppam bàyyi fi PS fa la ne woon walaa ko fekk maa ànd ak moom ñu dem ba Mogadishu Senghor jox ñu récépissé téléphoné Jean Collin pour ñu jël suñu récépissé kooku mooy parti bi nga xam ne njëkk naa nekk ki ko xalaat sos ko fii ñu toll ñoom it ñun maag Sidi Lamine sama rak toll nañ fa dóor nañu dàqe tëj nañ ñu xeel nañu façon bu ne gis nañ ko amul benn façon bu boo xam ne danañ ko def opposant te ñun jaaruñu ci amul ba fii ñu toll gars yi li ñu ñemee ñemee ba tey kenn ñemewu la jël pra euh, drapo France cos cos almet ci te def nañ ko ci kanam mi yi lañ ko defee. ca fa mu safee. Mitterrand président Mitterrand mu ngi nii ñaar téeméeri journaliste wër ko ñu ñu taal drapeau bi mu jooy yuuxu il fallait nag ñoom ñu am ko ñu relayer nag hmm. patriotisme déedéet ci la bokk l'islam sax ci déedéet la commencé laa d'accord looy wax nga door koo wax léegi nag ci démocratie ci démocratie loyauté ci la opposition di teg tànkam pour mën a opposer mënul jamais taxaw ci négation du ma guddal ndax beneen xutbaa ngi leen di xaar muy xutba juma mais léegi ci la ñuy wax ci biir mu ne Macky Sall moom dañ ko fi bàyyi ba ñetti at yi jeex te loolu ku koy wax booy wut dof teggi ko koy wax loolu teggi ko ndax Moussa ca kër na la yaroo te tu terew ko nekk am Moussa mais Moussa yaroo ci kër Firawna tere koo nekk Moussa kon premier premier point mooy ma président Macky Sall est une institution nous reconnaissons les institutions et nous les respectons mais nous ne jamais d'accord sur notre ennemi à tous la corruption man day juróom-ñeenti at ci laa tàmbalee di wut sama bàyyi ci boppam ba ma juróom-ñeenti at laa commencé di gérer budget ñëw naa fii ànd ak moom ñu teeru général de Gaulle le 26 septembre 1958 maa organisé voyage ba man mi am 12 ans boobu 12 ans laa am ci bi ma amee 12 ans teg ñaari weer ci la fi jógee. may jox sama yaay ak samay rakk te toujours maa ngi koy wax depuis 40 ans mosumaa yoreel nit juróomi dërëm du nit du banque du société du kenn ba ci biti naar bi man lu mu am doy na bu mu amul woor sama waa kër yi woor dañuy woor ñun fukki fan di ko teeroo weeru koor donc li nga xam ne moom moo am importance man wax naa ni musuma musuma jël am benn bentre carré boo xam ne état moom ma ko jox am fii ma ne ki ñàkk ña yow xam nga ndax gouvernement mën naa jël nangu suufu bu jox ko nitam de kooku ko am lébu yi la neex man maa ngi am foofu 1975 boobu la am un an ci laa fa def jënd ci lébu yi defar yooyu yëpp pour wane ne nit ki mën nga koo xam waaye lu nit wax sa kanam jabar ki doom loolu muy la jarak kii nag sama doom la ba ma ko waxee ne leen kenn du ko laal kenn du ko laal ko laal sama bakkan bi laa ci teg maa ngi koy confirmer mm. léegi nag njaw des na waxambin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 dañoo bëgg ngay wax ak usmaan Sonko ci liy doxal réew mi ak li réew mi bañ ma bëgg itam Ousmane Sonko ak mbooleem koo xam ne libre nga borom sa sam xel kenn yeewu ko ñuy daje fi périodiquement di dénoncer la la la corruption nommément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 ñooñu ñëw ñoom daal di ko def otage di ko def loo lu ne lu ñaaw loo dégg du moom ñooña la te buñ ko ca génn du ca génn ca génn c'est important su fekkee ne dañoo respecter les institutions jug boobu loolu waa ji bindoon ne euh, xawma euh, faut sauver le le nu mu tuddati soldat bi nu mu tuddati. Rayane ah. c'est ça mooy affaire Dreyfus quoi. Hmm. donc xam naa ko. Euh, il faut ñu dimbale Macky pour mu libéré ci le mauvais entourage boo boobaa ci la opposition bi di neexee ndax opposition bi baax mooy bii wax ak président bi te du ko corrompre puwaar bi baax mooy miy déglu opposition bi te du leen jaay doole du tëj seen gémmiñ du yaakaar ne ñoom ay ennemis lañ mais ay compatriotes lañ il faut que ñu reconsidérer ndax ñaar ñi fi njëkk a jiwee politique mooy la Senghor ak Lamine Gueye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 jigéen juy sëy dafa war a moytu di lëngoo ak ki mbokkal góor gi mbokkal leeg bàyyi ci mbedd mi ndax ña xamul lañ bokk yépp dañu ne kii de mi ngi sëy te mi ngi lëngoo góor ci mbedd may lancé fii ma toog appel solennel président Macky sàll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 benn bi moo wér benn bi baaxul feeg defaruñ ko doo doo mos rawante Casamance mooy xoromu Sénégal mooy économie Sénégal mooy foresterie Sénégal mooy léppi Sénégal te yàlla def na wàll gi ci Sénégal ñëpp a bokk waaye ñi gën a wér ñi gën a wér mooy Casamance man sama doom a ngi ni Salif Sadio maama alors parce que nag joolaa bu yelwaan ci feu rouge bi fa niru joolaa mais du joolaa xamuñu loolu xamuñu ñaan xamuñu ñaan ji nga jigéen ñi duñ laaj dépense dañuy wàcc ci faro yi jël jël jël jël ceeb bi indi togg ko jox góor gi mu lekk foofu la valeur intrinsèque yi nekk kon loolu bu tàrdee ñu jàpp ne ñii dañoo bokk ci feneen foofu lañ naxee suñ bopp euh, ana livre yi asalaamaaleykum ñu ngi nuyoo ñi fi nekk ñëpp di ko commencé ci suñu papa suñu kilifa Ahmed Khalifa ñas ak euh, waa këram yi fi nekk yëpp soxna Umu ak ñi mu àndal ak yaayu Cheikh Amadou Bamba. yaayu Cheikh Amadou Bamba collaboratrice am yi ak it euh, sama jumeau ki ma Marcel. Euh, nga xam ne moom déplacé wu na fan yi la ñëw ba kër ga. boobu lii lépp euh, eggagul fii. di nuyu sa collaborateurs yi ñoom Faye Faye moom mu ngi mi ngi nee na mi ngi waajal cere bi nee naa trop ma ñànk temps ma gënal. di nuyu ñëpp daal di kontaan trop ci. teew bi ñu fi teew tey ak ndaje gi ñëw ak suñu délégation it ñoom doyen Alla Kane Alaaji Malick Maymuna Jéey ak euh, Soxna Mbenn ñoom Jibi Guèye euh, Moustapha Sare ñëw dox tànk goo xam ne la ca jiitu tànku ngërëm la tànku cant la te di ko dox ci foo xam ne li euh, ñu boole dafa bëri wax na ko léegi plus ñuy waxtaan plus ñuy gën a gis sax ay lien yoo xam ne dem na ba ci lien wu famille ci wàllu diine rek ñëpp xam nañ sama digganteeg na ak mbadina Baye muy diggante goo xam ne ñoo ma soppal seen bopp intégré ma boole ma ba tey su may dem kawlax defe naa ci sama dem yu gën a neex la bokk waaye waaye moom dafa dépasé dimension boobu kese moo tax ci discours am euh, leader politique bi moo gën a feeñ te leader politique boobu la ñu seet si ndax euh, événement politique dafa am ci réew mi moom en tant que politique mu am ci taxawaay boo xam ne ñëpp gis nañ ko génn taxaw jël suñu défense ay engagement artu it te wax na ko léegi loolu ku ragal du ko def waaye da ba mu koy def def ko ngir parparloo daf ko def parce que dafa ja jàpp ni jaay doole am na tooñ am na moom muy acteur politique buy xeex ngir ay principe doublé d'un d'un guide religieux mënuñu woon a yaakaar taxawaay bu wuteeg booba kon ñu ngi leen di gërëm bu baax ci sama tur ci sama turu famille parce que li am du attaque politique kese waaye attaque privée la samay soxna sama wayjur samay mbokk ñëpp seen tur di leen gërëm bu baax di leen gërëm ci suñu turu parti politique nga xam ne moom it am na ci taxawaay boo xam ne waaye de delà de l'attaque privée attaque politique la woon aussi di leen gërëm ci turu ñi taxaw ñëpp ci ay mouvement citoyen ay parti politique ay citoyen ordinaire waaye di leen gërëm ci turu peuple sénégalais bi parce que li xew dafa engagé woon peuple bi yëpp bëri na ñoo xam ne gën nañ taxaw ne lii du jàll du ñu ay militant Ousmane waaye ay principe moo taxoon ñu jóg kon ñooñu seen tur ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di dellu di naqarlu toujours lii nga xam ne rot na ci ci ay bakkan muy lu ñu metti ñun ñëpp nag te loolu su doon am nañu cent ci détermination mun naa ne multi multiplier na mun a rendre ñooñu mooy principe yi taxoon ñu jóg di xeex ñun ñu mottali ko ba fa ñu tëdd ñu gis ni am na jeexital ci senegal kon ñu ngi leen di gërëm bu baax yow ak sa njaboot ak sa parti di wax nag ni ñëw fii toujours nii mu nekkee nii dafa am plaisir bu rëy buñ ci am parce que Ahmed Khalifa Niass ñoo ngi ko doon suivre boobu duggaguñu ci politique mooy ko xam ne kenn nattablewul dimension intellectuelle am maa ngi ko wax sànq bi ñu weetee nii balaa may dugg politique depuis ay année 2009 tey sama ordinateur su ma ko woon am na benn chemise bu ma ubbi tuddee ko Ahmed Khalifa Niass lu bëri li muy bind ci ay contribution ay articles maa ngi wax léegi benn bu mu bindoon ci finance internationale ma toog ne waa góor gi moom lii lépp fu mu ko xamee donc ñëw seet si ku mel noonu nga xam ne ci wàllu xam-xam xalaat ak xel li amul kenn koo xam ne dinga am xel ñaar ci Sénégal c'est toujours un plus muy loo xam ne it am nañu yaakaar ni dina ubbi bis ni beneen bunt beneen dimension ci relation ak collaboration ndax saax patriotisme yaay bàyyam ci senegal ndax deux deux mille nga créé parti askanele dàkkantele ko patriotisme ma ne kon soo ko revendiqué ñun ñëpp dañ koy nangu donte bi ñuy créé parti sax du woon ci logique concurrence waaye maa ngi koy tooñ léegi ne ko man li ma ci xaw a métti rek mooy boo xoolee fichier parti politique yi mat nañu trois 300 am na ci au moins 30 yoo xam ne patriote wala patriotisme mi ngi seen seen seen sigle waaye li tax ñun rek nga ci sànni xeer nag <laughs> boobu moom laa xamul mu ne ma xam nga politique il faut mu am kujje waaye ñu gëm patriotisme dañoo war a daje li mu wax dafa am solo mooy dafa jot ñu construire suñu propre modèle wala ñu reconstruire ko parce que amoon na nag ñàkk fi woon modèle bi ñuy doxee nii dañ ñu ko imposer teg tegal ñu ci bi ñuy jox indépendance ñu wéy ci ñu nit continuer kon dafa jot ñu tabax suñu propre model te idéologie it ñàkkul woon fii Afrique ndax ñoom seen Thierno Souleymane Baal ak euh, li ñuy wax charte du Mandem ku ko liir da nga xam ni ñoo jiitu woon foofu tey ñi ñu imposer ay idéologie ci wàllu xalaat kon woote patriotisme li muy tekki rek mooy ñu dellu si suñuy valeur construire suñu model ci base boobu te weesuwul tamit ñu jiital bëgg suñu réew donc bëgg suñu bopp ci lépp damay wax toujours ni bëgg naa sama bopp tekkiwul ni bañ naa la amul réew bu dul dox nag ci patriotisme dañ nax rek tubaab yi ba date bu soriwul sax ñoom ñëpp patriotisme lañu doon doxee bi ñu dem ba xam ni mënatuñu jëriñu lu bëri ci patriotisme parce que mondialisation dugg na te il faut ñu dem noot ñeneen nax leen ci la ñu ne léegi dañu làq patriotisme bi bañ koo fësal parce que suñ ko fësalee ñeneen ñi dinañu yow ci loolu ñu àndil ñu nag ay ouverture ak ay accord de partenariat nag ubbi leen seen économie def leen lii def leen lële ñu ñëw jël li ñu bëgg ñun yóbbu kon naxe foofu la ne ñun ñëpp dañoo war a daje ci loolu nga xam ne mooy patriotisme ñu ngi ci am ubbeeku bu doy ñun suñu waa parti liggéey ceeg tous les patriotes te mënuñoo am xel ñaar ni moom patriote la ndax xeex na ko ba def ci kaso boobu peut-être ñun juddaguñu wala suñu juddoo it ñu ngi doon jàng dox walla jàng raam kon kilifa gi loolu moom maa ngi ko wax ci sama turu parti ak ñi ñuy liggéeyal yépp dinañ ci sawar lool daje ceeg yéen liggéey ji leneen nag li ñu wax lépp wax nañu ay dénkaane yu ama am solo ndax sànq wax na ma ni am na piège yu ngeen war a moytu mooy conflit inutile contentieux yu bëri yoo xam ne amul njëriñ loolu dugg na suñu nopp ak yeneen ak yeneen yoo xam ne wax na ko fi te expérience la ko waxee dégg nañ ko te waxtaan yi ñuy aw yi ñuy seqaat xam naa ne yu bëri na ci génn kon kontaan nañu trop bég nañu trop ci ñëw gi ñëw fii ñun nag Sénégal rek la am moom la ñu bëgg amuñu beneen nationalité Sénégal lañu gëm ba ci gëm ko ci service public damay wax ni li ëpp ci samay doom tey lycée lañ amul sama benn doom bu egg niveau collège te nekk école privée parce que dama gëm man service public sénégalais. am naa lu ma demee fay ci li eh, école yi gën ci école yi waaye samay doom ci lycée public yi la ñu nekk bu baaxee ñu ànd ak moom bu bonee ñu ànd ak moom ndax ñun produit école publique boobu lañ moo tax mënuñu bañ a nekk des républicains ab républicain du bëgg le cycle démocratique ñu interrompre dellu gannaaw la de cinquante ans wala sax avant indépendance loolu duñ ko musa duñ ko musa sooke duñ ko musa a favo lañ bëgg rek mooy réew mi ñu xam ne ñun ñëpp a ko bokk réew mi tekkiwu ni dañoo fal nit moo moom réew mi parce que toujours dama naan concept buur sa war nañ ko xoolaat parce que ñun amatuñu ay buur buur moom moom dëkk bi dañ naan alalu buur mbedd buur et cetera ñun ay président la république mooy boo ko bëggee nekk da ngay ñëw saraxu sénégalais yi ñëwoo imposé wu doole da nga ñëw ne dénk leen ma am naa programme keneen ne am naa programme keneen am askan bi ne yaa ñu doy waaye ci kaw programme ak li constitution mais ci droit ak li mu limité ci say prérogative kon réew ñi ko bokk ñëpp ñoo ko war a séq ñu war a am sañ sañ nag mu am ñu bokk ñu ne bokkuñu gis-gis ak ki yor réew mi ñooñu waruñu leen persécuter dañ leen war a bàyyil seen cër ndax ku yor réew rek te am ko ci alternance démocratique dañu laa bàyyi moo tax nga mën koo nekk waaye su doon ñi fi nekk dañ ne kenn du fi wax déedéet kon doo nekk président loolu it ànd nañ ceeg yéen d'accord nañ ceeg yéen te ñu jàpp ni réew mi moo war a ubbeeku ba kenn ku ne respecte sa sañ-sañ ak sa droit ak sa ak ak sa àqi morom te lépp ñu teg ko ci constitution ak loi réew mi loolu it dinañ sawar dox ci jàmm la la réew mi bëgg boo gisee keroog ma wax li ma wax ci jàmm Casamance ba ñaan ne ci juróom benn weer yi ñu ñëw ñu dem parce que du lu ñu war a xaarati te du lu ñuy régler ak ay kanu kon loolu ñu nit am nañ ci ubbeeku bu doy parce que bu jàmm amee Casamance Sénégal décollé léegi ndax la fa yàlla def ci possibilité yàllaa yàlla rek ko mën wax nga ko léegi ci ressource forestière ressource agricole ressources halieutiques suuf su nangu taw gu bëri léegi ñu gis fa ay ressources minières kooku dañu war a fexe ñun ñëpp jàmm am sénégalais bu bëgg liggéey ak foo mën a jóge nga mën a dem installé wu liggéey ànd ak ña fa dëkk ngeen liggéey mu doon naataange Sénégal loolu am nañ ci ouverture pour liggéey ceeg ñëpp ba solution boobu ñu am ko définitivement kon vraiment bég nañu ci visite bi waxtu wee ñu tënk waaye mënoon nañ ci wax ba guddi comme tey bésu àjjuma la te ngeen ni ngeen it kilifa diine war a jiite jumaa duñu duñu du ñu xababal ci wax ji waaye di wax ni bis ni ki tey jàpp leen ni seen doom seen xarit seen collaborateur ci politique ngeen bokk gis-gis bokk idéologie euh, tàllal na loxo pour ñu mën a wëyal waxtaan bi mën a collaborer dans l'intérêt du Sénégal jërëjëf waaw loolu nangoonte nañ ko yéen journaliste yi su fekkee ne tànki jàmm yi may dox yàlla sotal na ko dangeen ñëw fii fekk saal bi benn taabal a fi nekk ak ñaari sees bi Macky Sall toog ci bi bii soo ko toog ci ñu waxtaan pour réew